mais aussi tamit di lancer appel très fort à monsieur le maire de la ville de Guédiawaye Aliou Sall notre ami notre frère Aliou en dehors de la politique war na xam ne dafa jiite dafa njabooti Guédiawaye tey bu taxawee tiim ay ASC yu bari daal di sepp li nga xam ne mu yëkkati un soutien financier war na leen ko jox leen ko war na gestu ASC bu jamono tey donc présentement ni jusqu'à présent le comité des supporters de Jamono 2 le comité sportif de Djamono 2 nous avons ngi xaar loxo en tout cas jusqu'à présent jàppale na salle, mais jàppaleegul le xamuñu Nous lan lañu def ab